الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mbokk julit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy xuraafaat wa shirkiyaat muntashira bayna annas xuraafaat mooy ay caaxaan yoo xam ne ña koy def teguñu ko fenn wa shirkiyaat ak ay bokkaale yu dul jeex yoo xam ne muntasira bayna naas dafa tasaaroo ci biir nit ñi dañ koo tàmm xuraafaat yooyu caaxaan yooyu dañ koo tàmm ba nga xam ne ci ñun am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne dafa war a bokk ci dund gi wala lislaam sax daf koo santaane te ay caaxaan la yoo xam ne ay neen yoo xam ne du dara yoo xam ne aada yoo xam ne sax na tey ci biir xoli jullit yi jullit yi tey ñoo sànku sànku goo xam ne la ñuy def ci seen diine xamuñ ci dara tey ci sunu diine li ñuy dund mooy inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim lam rek kese kese loolu la ñuy dund tey ñun ñëpp nag fukki tomb ak juróom ci yoo xam ne xuraafaat la wa shirkiyaat muntashira bayna nas yooyu ba ca jiitu mooy atasaa'um min annaalil maqluba allahu akbar mooy gaaflu di gaaflu ci dàll bu dëpp dàll bu dëpp génnal ci mbedd mi rek wala nga dugg ci kër wala nga toog ci saal wala nga nekk ci biir néeg nga gis dàll bu dëpp lan lañ ci wax ku doon wax sax day taxaw ne dëppar ndir leen dàll bi ñu doog a dëppar ni dàll bi ñu doog a continuer loolu ban diine la dàll bu dëpp ak bu dëppuwut xëy na bu dëppoo day ñaaw bu fekkee loolu lañ ko jëlee dara nekk ci buñ ko wëlbatee waaye gëm ne dàll bu dëpp ay wërsëg yu dëpp la ak ay oto yu këpp la ak ay kër yu këpp la ak loolu moom musiba la te tey loolu moom loolu loolu mooy pas-pas bi ci suñu xol ñun ñii ñëpp ku ci gis dàll bu dëpp soo doon dox sax da nga jàdd dëppandi dàll bi parce que yaakaar nga ne day yàq sa yoon loolu maa ngi leen di yëgal ni ci xuraafaat yi la bokk ci shirk yi yaat yi la bokk partout nag ci biir dëkk bi ñun ñëpp aada lañ ko def ci làkk yëpp ci xeet yëpp dàll bu dëpp kenn du def dara lu dul ñu dëppandi dàll bi ba pare loolu tasaa'um la baaxul yenn saa yi sax day dem ba nekk ci bokkaale yàlla tabaraka wa taala dootul nekk sax xuraafaat ñaareel bi mooy abrazul abrazul xaz abrajul xazi mooy horoscope horoscope daanaka moo gisaane benn la gisaane mooy bu olof bi horoscope mooy bu tubaab bi journal boo liir ci Sénégal am na horoscope télévision booy déglu am na ku fay def horoscope am na ci nit ñi ñoo xam ne du ñu xëy génn lu dul danañ déglu seen horoscope lan la wax ba pare bu dee mois décembre bu dee janvier bu dee février ah jiit gaynde jaan caaxaan yooyu nga xam ne tey sax na ci xolu jullit yi jullit buy liir horoscope di ko gëm wala sax mu jaral la nga dem jëndi journal ne liiral leen ma sama horoscope tey lan la nga dégg waa ji da laaj ban mois nga juddu ah yow de sa horoscope horoscope bu nangam la ab jullit dafa am yoo xam ne ab du gis-gisaanu jullit du pas-pasab jullit laxdari bi gën a tuuti chaque jour ñu wax ko def ñuy wax ne ab jullit wala yaxillu lahu an yafala filan xata yaalam hukmallahi fii amoo droit gëm dara wala ngay def dara lu dul da ngaa war a xam lii ngay def lan moo ci atte yàlla mbokki jullit yi ba ca tegu mooy iqamatu nusbi atazakiriya mooy tabax monument monument li gën a ruslu tey ci Sénégal waxuma sax ñuy toppandoo tubaab yi ci seeni monument waaye ñun julli ñi dañuy defal sunuy sëriñ ay monument da ngay jaar ci ay mbedd fekk fa ñu defar mbedd bi ba mu rafet peinture ko defar fa benn woo ay maçon ñu tabax ba tabax bi pare ñu daal di fay def benn photo sëriñ daal di koy tuddee mbedd mi loolu baaxul dafa haram xanaa jàngu leen histoire yonent yàlla nuux jànguñu suratu nuux jànguñu aaya ba naan wa qaalu laa tazarunna wa qaalu laa tazarunna alihatakum wala tazarunna wuddan wala suwaan wala yaxuusa wa yauuqa wa nasra ñooñu ay kilifa yu baax lañu woon bi ñu deewee seytaane ñëw ne leen da ngeen leen di def ay estati ngeen de samp leen ku nekk fa nga doon toog di jàngale diine ndax nit ñi bu ñu leen gisee seen xel nekk ci diine waaye xam nga ne génération yi day am di changer génération yi di dund di fa fekk ñooñu di dund di dee di dund di dee mag ña ko fa defoon ba ñu faatoo xale ya leen doon naat placé biñ ñëwee ñoom dañuy raay ci kanamu estati bi di def ci seeni kanam dafa ne ñii ñooy yàlla yi moo tax ba nuux ñëwee di woote waa dëkk bi yëpp dajaloo ne wa qaalu laa tazarunna alihatakum bu leen bàyyi seeni yàlla yi yàlla yaa ngi nii bu leen topp kii tey loolu moo am ba pare li gën a ruslu mooy yenn saa yi ci ñun am kilifa gu dee ci kër ay doomam defal ko benn photo bu ngand teg ko ci saal bi def ci ay fleur loolu indo yi di def pour lan mooy fàttaliku loolu ci xuraafaat yi la bokk te yenn saa yi di dugg ci shirkiyaat yi loolu moo am ci sunu oto yi oto bu ngand buñ def benn kilifa loolu moo am ci sunu biir kër yi moo am ci sunu saal yi moo am ci sunu dëkk bi te monument yi ci ëpp ay monument franc-maçon la franc-maçonnerie la monument yi ëpp ci monument yi ñuy defar waxuma sax yuy woote ci wàllu kilifa diine waaye monument yi monument franc-maçonnerie la yenn yi ay jaan nga ciy gis ak ay croix yi nekk ci pharmacie yi yenn yi lan nga ciy gis ay gaynde yenn yi bët nga ciy gis yenn yi fas nga ciy gis te yooyu yéen a ma gën a xam ne ay croix wu ay gratu franc-maçonnerie la mbokki jullit yi kon ñetti mbir a ngi nii yoo xam ne jullit yaa ngi koy def tey te dafa bokk ci xuraafaat wa shirkiyaat muntasira bayna naas ba ca tegu mooy lubsul xaatamatul xitba bàgg lan bàgg fiançaay bàgg nga gis jullit bu war a takk soxna wala xale bu jigéen bu ñu war a takk jullit waa ji dem ca tëgg ba mu defal ko benn bàgg benn jaaro mu ñëw dugal ko ci loxo xale bi mooy yow man maa lay takk loolu ban islaam moo ko jàngalee te tey sunu dëkk bi yëpp la genn wàllu jullit yëpp dañ koy def genn wàllu jullit yu jigéen yëpp dañ koy nangu te xam ngeen loolu cosaanam ca nasaraan yàlla te yónni woon nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñun pour mu ñu ñu wuuteeg yahud ak nasaraan loolu moo ñu dal ba ci ay 24 décembre ay 31 décembre maanaam ñun tey loolu yonent bi doon wax ne la tattabi'unna sunana man kaana qablakum sibran bi sibr wa ziraan bi zira law daxalu hujrata dabbin la daxaltumu moo ñu dal tey wallahi yonent bi dafa toog septième siècle naan yéen jullit ñi di ngeen toppandoo yahud yeeg nasaraan yi tànk ak tànk mbagg ak mbagg ñoom bu ñu duggoon ci ay poxu mbëtt sax di ngeen fa dugg fekk leen ndax toppandoo gi ngeen leen di toppandoo démb benn jumaa bu ma jullee tàkkusaan fekk amoon nañ fa rob ku gaañu ñenn ñi nga xam ne sax seen mbokk moo gaañu woon ñi ngi ci jumaa ji toog ma jàkkaarloog ñoom ñoo ngi koy ñaanal yàlla yërmande ak aljanna firdaws ñaari xale yu góor ñëw dugg ci jumaa ji tàkkusaan julli ba pare daal di génn ak seen jiin yu xar yu ñu fëq ak yu ñu kuppati bi ma leen gisee ñoom ñaar ñu génn ak seen i jiin yu fëq ak yu ñu kuppati ma nuyu leen asalaamaaleykum da ngeen doon julli ñu ne waaw ma ne awra jul awra góor fon la tàmbale ñu ne xamuñu ko de ma ne ci jumbax bi ba ci oom bi warul feeñ ci julli ñu ne waaw ma ne leen seen tuba yi ñu xar yu foqatee ko yi nag ñu naan dañ koy kale ak seen loxo nga nekk ci kanamu yàlla nga sol ay tubéy bu fëkk ci suba ma koy wax sama soxna ma ni ko démb démb démb Sénégal boo gisee ku sol tubéy bu xotteeku doo ko bàyyi mu dem da ngay dugg sa biir kër ut yére bu rafet nga daal di ko koy may da nga yaakaar ne kii wala kaana la tey yére yu xotteteeku la ñuy tuwaata la ñuy tuwaaleetoo la ñuy demee jàkk moom la ñuy jullee moom la ñuy demee fu nekk moom la ñuy duggee ci armeel yi moom la ñuy demee partout ci jàkk néegu yàlla yi ay jiin yu yu xar da ngay gis xas koo xam ne bi mu jënd xotteekuwul moom mooy dem ci tailleur bi ne ko xottil ma ko nii wala mu jël paaka wala lañ set xottil ko boppam fan la doomu aadama yi toll tey ci ci ci ci ndof ci ay xuraafaat ak ay sirkiyaat mbokk julit yi nañu yëg ne jaaro boobu ku góor di jël di ko dugal ci loxo xale bu jigéen bokkul ci islaam bokkul ci sunna yonent alayhi salaatu wasalaam bokkul ci njàngale sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ci xuraafaat la bokk ak sirkiyaat ba ca tegu mooy lubsu suwaar an nuhaas mooy takk lam lam bu am xaalis bu am weñ gu ñuul bu am përëm wala jaaro lu ëpp ci doomu aadama yi rawatina kilifa yi góor yi borom kër paa yi ñu ëpp ci ñoom da ngay gis ku takk ngandum lam lam bi xaalis moo ci nekk përëm moo ci nekk weñ gu ñuul moo ci nekk boo ko nee lii nag mu ne la sarax la sarax lamu sarax la sama yaay wala sama papa wala sama sëriñ wala sama kilifa wala wala wala wala moom moo ma wax naa ko takk sa papa moo la wax na nga ko takk sa kilifa moo la wax na nga ko takk sa sëriñ moo la wax na nga ko takk Seydina Muhammad ne la tekkil kan nga war a déggal Seydina Muhammad nee na góor du takk lam ba mu gisee waa ji sol xaatam min zahab ca marché ba waa ji takk bagg or yonent bi laaju ko foo bokk noo tudd daf ko nuyu rek xëcc jaaro bi buddi ko ci loxo waa ji ba loxo bi deretal yonent bi sànni jaaro bi ci suuf mu ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflaxta abadan boo dee wooye bu la yàlla nattu woon ba nga dee jaaro bi nekk sa loxo doo dugg aljanna kon ponkalum lëmm mi takk lam ponkalum lëmm laax mi takk lam gàddu si jaadaam ak julli si jumaan ak fekk yaa ngee ngandum lam moo xam xaalis la moo xam or la moo xam lamu njaxas la moo xam lam gu ñuul la te li ëpp ci sénégalais xoolal lam gu ñuul googu nga xam ne dañ ko dugal bois sacré génne ko ñëw indi la ko nga takk da ngay takk lam gu ñuul ndax bët yi ñuul yeeg làmmiñ yi ñuul yeeg buñ ñëwee duñ la mënal dara ci ci lambu ñuul bi la ñuy dal loolu lañ lay wax de waaw xale bi takkal ko lam gu ñuul même sax ci sunu xar yi xar bu juddoo nekk benn melo bu weex tal da ngay gis ñu daw takkal ko sagar gu xonq maa nit ñi ne moom dañoo bañ ne ñoom yàlla kese kese déedéet foog rek yàlla ak yàlla ak nañu xam ne mbokk jullit yi lam boobu dafa haram ci xuraafaat yi la bokk waaye rabtul xirqa fi muqaddamati sayaara aw muaxaratiha ci la bokk am oto dagg sagar takk ci kanamu oto bi wala nga dagg sagar takk ci ginnaaw oto bi wala nga takk ci geenu nag xoola da ngay gis oto bu ñu takk geenu nag kookee dafa waroon jëndi nag rek oto bu am geenu nag pour lan la yooyu yëpp ci xuraafaat yi la bokk oto bu ñu takkal sagar benn mbokk bu jigéen dafa am oto yaayam am kum doon seeti ne ko yóbbu ma ma seeti kooku ñu yóbbu dem bay ñëwaat mu ne ko ñaanalal sama doom ji de fan yi dañ ko jëndal oto bi kañ doon seet daan ne mais borom oto bi boo demee nga ut lingom ak gingeer nga def ko fi ngay toog ma ne ko ndaw oto bu saf utal lingom ak gingeer nga def ko ci oto bi lu pour lan la ndax doyul rek ñaan bi la Seydina Muhammad jox soo ñëwee di yëg ci oto bi ndax yonent bi amul ñaan gu mu jàngale moo tax allahu akbar islam amul lu mu bàyyi fii nga toog laaj boo laaj ne ndax l'islam wax na ci lii da ngay gis l'islam wax na ci loolu ñun ñëpp nag wallahi alazim jumaa ji ak ni mu toll ñun ñu julli si ñëpp kenn ku nekk boo génne woon benn question l'islam dina tontu islam bàyyiwul dara bàyyiwul dara sunu diine maa farat naa fil kitaabi min shay abu darda benn yahud dafa ñëw ci moom ne ko waaw yéen ndax seen diine ji jàngale na lépp mu ne ko jàngal na yonent bi jàngal nañu lépp bàyyiwul dara mu ne ko lépp mu ne ko waaw waaw jàngal nañu ba jàngal ñu booy dugg ci toilette nooy duggee sooy génn nooy génnee boo fa nekkee noo fay nekkee jàngal nañu ba jàngal ñu yaag sa soxna ci kawlal nu ngeen fay nekkee allahu akbar bàyyiwul dara waaye ñun noo alku takk ay sagar ci ay oto aw taaliqul ajala assayaara ala ashatil buyut wala ñu jël pono oto teg ko ci kaw kër gi pono oto allahu akbar pono oto nga gis kuy wër pono oto loo koy dee sama kaw kër laa koy teg lan la bu fekkee benn musiba dafa war a wàcc jóge ci kaw asamaan pono bi moo koy aar pono ana xel yi ana xel yi ñun dañoo dem ba pono mooy comme xëy xëy suba rek di sotti ndox yooyu yëpp ay xuraafaat la yoo xam ne da ngay wax a wax a wax ba sa gémmiñ ngi di génne ay étincelle waaye julli ñi dañoo lànk parce que fekk nañ seeni i bàyyi moom la ñuy def même julli dañu gis ci julli ba pare nga gis kuy dessiner si jaada yi kara kara di dessiner lan ngay bind ci si jaada bi yow waaw lan ngay bind mu naa nga dégg sama benn ñaan sama benn paa moo ma ko jox sa paa boobu li mu la jox ak li la Seydina Muhammad jox lépp barke est-ce que yaa ngi gam-gam le paa bi lim la indil ak li la Muhammad indil lu gën waaye da ngay bàyyi li Muhammad indi jël li kii indi jël pono di ko takk ci kaw kër wala bokk na ci ba tey taaliqul axziya fi sayaaraat jël dàll dàll surtout nag dàllu xale takk ko ci oto loolu ci kaar yu mag yi nga koy gën a fekk jël dàllu xale surtout nag xale bi bu fàttee bu ko yaay ji bootee benn dàll bi wadd ci oto bi terminé buñ koy gis ci oto boobu lañ koy takk dañ naan lool day aar oto bi dàll mun naa aar oto est-ce que ñun ñu ngi xalaat ana yàlla tabaraka wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ana faalun lima yurid ana tawakkal ala allah ana bu fekkente ne ay jullit ngeen in kuntum muminin fekkee gëm ngeen yàlla lan la yàlla wax ni ngeen wakkirlu ci man wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin su fekkee gëm ngeen yàlla dëgg yàlla ngeen di jox seen bopp waaye di jox sa bopp ay dàll ay pono ah ndox bokk na ci taaliqul musabbaha fi sayaarat kurus kurus da ngay gis ku jël kurus tekk ci otoom laxas moomu dëgër teg wala jël kaamil teg ko ci kanamu oto bi wala jël kurus takk ci loxoom wala jël kurus sol ci baatam am na ñoo xam ne foo leen gis ñu ngi kurus kurus gi dañ koy takk ci oto bi wala ñu takk ko ci seen baat wala ñu takk ko ci seen loxo loolu ci lan la bokk ci xuraafaa ji la bokk du dara amul place ci diine amul place ci diine ba ca tegu mooy wadul quraanil karim taxtal wisaada jël alquranul karim di ko dugal sa suufu njaganaay wala nga teg ko ci kaw armoire bi wala nga teg ko ci bibliothèque bi wala nga teg ko ci bunt kër gi wala nga teg ko am na ñoo xam ne bu ñuy tabax kër dañuy jël kaamil bi xottate ko daal di koy tegee fondement am na jumaa ju réy ci biir Sénégal jumaa ji sooroor bi bi ñu koy tabax kaamil ay kaamil 40 kaamil la ñu xottati dugal ko ci suuf teg ci sooroor bi yëkkati ko mu jóg kaw wala bokkaale yu garaaw yooyu jël kaamilu yàlla di ko xotti daanaka ñun yi ñuy def fii yi yahud yi ak juif yi di def ak nasaraan yi yéeféer yi ñuul yi majuus yi ñun julli di moom la ñuy def waaw jël alquran di ko dugal ci ay suuf njaganaay ak am na ci buxaaba yu alku yoo xam ne dañuy jël alquran di ko binde deretu règle lu jigéen wala ñu takk ko seen tànk dugge ko duus ñaari kaamil ngay jël tekke sa tànk dugge ko biir duus xoolal lool ci mbon gu ñu toll tey di def ay jëfu yéeféer yoo xam ne jëfu bokkaale yoo xam ne li ma leen di wax ni nekkul ay lépp ay gént gisoon ngeen fi benn xale bu taxaw ci alxuraan jamono yële paas ñu naan dafa dof yéen ñëpp gisoon ngeen vidéo bi di circulé bokk na ci mbokk jullit yi hikkatul yadi mooy loxo bu xasan da ngay gis am ponkal war a liggéey liggéeyiwul xëy loxoom xasan mu naan yaakaar naa xaalis sama loxo baa ngi xasan ñeneen Sénégal loxo bu xasan xaalis la loolu mbokk jullit yi ci xuraafaat yi la bokk jullit soo bëggee am da ngay dem nga liggéey yi yàlla nee na fa iza faraxta fan sob soo sëlmalee demal nga liggéey dama nga sonni fa iza faraxta fan sob yàlla wax na dem leen ngeen uti lu ngeen def imalu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur jëf leen liggéey leen comme waa kër daawuda nañ doon liggéeyee sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yàlla daawud da doon liggéey ba loxoy wow koŋ lan moo doon liggéeyam moom moo doon defar mbubu geer yi te ab yonent la yàllaa ko yónni toogul rek daa di yàccaaral ñu koy ziyaare di ko indil ay ay ay ndimbal wala moom dafa jóg dem liggéey yi yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi wahda wala nabudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah juróom ñeenteelu tomb ci xuraafaat yooyu ak shirkiyaat yooyu atasaa'um wa tafaa'ul bi rafrafati l ayni ñoo ngi doon wax sànq loxo bu xasan fii bët buy raf bët buy raf man de sama bët baa ngi raf ñu ne daa am koo gëj a gis léegi mu ñëw déggal foo ko teg man de sama bët baa ngi raf ban bët la nga ne bëtu ndeyjoor wala bëtu càmmoñ ñu ne yow de léegi nga gis benn wàll yi wala benn xoolal caaxaan yooyu yu kenn xamul ay pas-pas yoo xam ne ma anzalallahu bi amin sultaan ñun rek ñun ñoo xëy rek keree suñuy mbir daal di teg lan mooy dalil ku sa bët di raf da ngay gis wàll yi wala da ngay gis yonent lan wala da ngay gis gan lan mooy dalil bi amul benn dalil te yi nit ñi dañ koy xeeb te mooy yàq pas-pas yi parce que bu fekkee da ngaa gëm sa loxo bu xasanee xaalis la sa bët bu rafee gan la chaque jour bu amee nga yaakaar ne lool la noonu ngay def noonu ngay def ba am na ci buy ñëw ci kanam mooy di gaaflu soo yeewoo fajar nga nekk jigéen nga war a xëy nga génn gis ku góor nga taxaw bañ a dox bokk na ci azappu inda binaa'i abi duxulil manzilil jadid tabax kër wala jënd terrain da ngay gis waa ji jënd terrain ba pare ñu ne ko demal nga rey fa dara mu dem gàtt jàpp xar rey mu tabax ba pare balaa muy toxu ñu ne ko demal nga rey rendi googu ñuy rendi xanaa yëgu leen ne yonent bi nee na laana allah man zabaha li xayrillah moo tax léeg-léeg ñun ñi ñëpp ñu toog ba ci yàgg rek ñu daan ñuy indil yàpp suñu kër surtout nag imaam yi ñoom lañ ci gën a yëpp ngay jéggi rek ñu ne imaam loolu la kilo kilo ñaari kilo yàpp la fu mu jógee ne dafa am ku la ko indil jàkka ja loolu wóorul lekk wóorut a lekk parce que lépp lu nu rendi te rendi luñ ko yàlla loolu araam naa lekk loolu nañ ci bàyyi xel am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi dañuy rendi rek di joxe dañuy rey ay nag surtout nag ñu ne reyal nag bu ñuul bu lekk ci yàpp bi nag yow ne yàpp bi génn sa kër nga rey jox ñëpp ñu lekk dëkkandoo yëpp fu ne nga dugal fa ñaari kilo ñu naan la jërëjëf fekk xamuñu lu ñu lekk comme ñun dañoo foqale lu ñëw ñu lekk yooyu nañ ko moytandiku génn nañ xuruj dem wetu géej fajar ñuy dox ba caagare ñu gis benn waay yor ginaar ne da koy rendi suñu amir bi mu ne keede day war daal fa nar a rendi ginaar gi te gis ngeen fu mu ko jubal ci biir ci géej gi la ko jubal au lieu mu jubal ko penku ci géej gi la ko jubal kan mooy dem dimbali ko benn mbokk ne jox leen ma ndigal ñu ne ko demal mu dem ne waa ji da ngay rey ginaar gi mu ne waaw mu ne in ma rendil la ko waa ji daal di koy jox paaka bi rek mu tourné ginaar gi rek penku bi rek daal ne bismillah rendi ko waa ji di ko xulli ay bët ndax xam nga ne lii nga def du lii laa bëggoon fii laa ko bëggoon rey waaye nag waa sa waay yow tamit yow da doo ma waroon laaj mu ne ko da nga ko bëggoon rey rek reyal naa la ko mu leer na ne kooku bu ñibbee dina indi jiwaat beneen ginaar xoola yëfu dof yooyu nit ñi seen xel yi lañ yàq toll nañ ci am am wala bëgg am dara soo leen waxee defal leen même bu neexul yàlla dañ koy def ixwatal iman rendil kër sooy toxu wala nga fay dugg wala nga fay dëkk dafa haram rendil kër laa wax balaa ngay dugg ci kër gi rendil xam nga loolu ñooñu pas-pas bi lan la mooy dafa am ñu dëkk ci kër gi soo leen rendilee ñu génn kër gi bala ñooñ ñan la ay jinne lañ ak ay shaytaan loolu bokkaale yàlla la ba ca tegu mooy wat u sikkiin taxtal wisaada liir juddu jóge hôpital ba wala maternité ñu indi ko ci kër gi yaay ji néeg ba muy dugg ñu ne néeg ba nañ jël paaka def ko ci suufu njaganaay bi xale bi doog a tëdd ci kaw lal bi paaka boobu moom mooy garder liir bi paaka bi mooy garder liir bi ñu ëpp ci ñun da nga fekk paaka ci seen suufu lal lal bi nga xam ne fa la liir bi tëdd njaganaay bi nekk fa ci suufu njaganaay bi paaka dina fa nekk ñu koy layee ne paaka boobu moom mooy wattu liir bi waa ana yàlla mi doon wattu liir bi bi mu nekkee ci ñetti zulumaat fii zulumati salaasa kan moo ko doon garder foofu bi mu nekkee ci biir butit nekk ci mbàq nekk ci biir di lekk di naan di wëlbateeku ba juddu jot yàlla nee na summa sabila yassara ma yombal yoon bi mu judd mu ñëw ana yàlla moomu wallahi ku dul yàlla munoo dara loolu ngeen di bañ a dégg mooy lu dul yàlla neen la wallahi moo am lu dul yàlla du dara waaw moo tax yonent bu yàlla yónni mosoo tiit parce que da ngay xam ne lii ngay waxal wala ñii ngay waxal munuñu dara mbir mi mbirum yàlla la waaye ñun bokkaale guddi bokkaale bëccëg waaw sénégalais yi ñoo mënta gëm nit gëm yàlla kese da ngay dégg ñu ne kii de yàlla kese la gëm nii kii kii di dof la yàlla rek la gëm waaw suñu benn xarit papaam gaañu na ñu dem suuli ko ñëwaat ñu ne dañuy rey xar mi dëje ko mu ne leen déedéet du ma ñàkk papa ñàkk xar am paa yi def délégation ne dañ koy waar pour mu bàyyi ñu dëj yeneen paa yi ne leen jarta dem kii ab dof la bu ngeen waxee moom tam du ko dëgg ndax yàlla rek la gëm dof la xoolal ku gëm yàlla kese ñu ne dof la foog nga gëm yàlla ak ñu ne kii ku normal la même sax dëkk bi booy wër dañ laan la waaye yow foo bokk nga ne man man jullit la waaw ñu ne waa xam nañ ne jullit nga waaye ban kër nga bokk ci kër yi nga ne non non man kay yàlla rek ak yonent ñu ne gis wala yow wéroo il faut nga am foo bokk waaw ku bokk kër yàlla kër yonent am nga foo bokk wala amoo foo bokk balaa balaa kër yii di am ban kër moo amoon laaj la ma ne balaa kër yii di am ban kër moo amoon moo tax yenn saa yi nga dégg ku ne mag ñi ñu ne mag ñi ak mag ñee ku mag ban mag moo mag Aboubacrine li ngeen Sénégal dañoo am mag bu mag Aboubacar mag bu mag Umar mag bu mag Ousmane mag bu mag Ali mag bu mag Bilal Ammar Soayib Musab Hamza dañoo am mag yu mag ñooñu kon nag dañu dellu si xel yi xam ne mbir mi ay pas-pas la ay texte la waaye du ay xalaat ba ca tegu mooy atasaa'um bi mu bi mu laaqaatil asxaas am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba duñ daje góor am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba duñ daje jigéen am na ñoo xam ne bu ñu xëyee du ñu daje xale am na ñoo xam ne bu ñu xëyee du ñu daje màgget loolu ci lan la bokk nga xëy suba war a liggéey taxaw sa buntu kër di xaar ku góor romb wala ku jigéen romb wala xale romb wala mag romb nga doog a dox wala tey de sama xëy bi neexul lu tax damaa daje góor tey de sama xëy gi neexul lu tax damaa daje jigéen tey de sama xëy neexul damaa daje diw man xamoon naa ne bi ma daje kii tey du ma am dara kon moom moo yàlla moom moo la xañ moom lan la def moom tamit est-ce que bi mu dajeeg yow moom tamit mbiram baax na yaa ngi wax bi mu dajeeg yow mbir sa mbir baaxul est-ce que moom mbiram baax na bi mu dajeeg yow kon mbir yi du ay daje mbir yi du ci nit ñi mbir yi ci allahu subhanahu wa taala la nekk waaw faamal fi kulli yawmin ma shi'ta fa inna al ayama kulluha lillah la tadur wala tanfa defal lu la neex ci bis bu nekk bés yëpp ci yàlla la bàyyee ko amul bis buy lore amul bis buy jëriñi bis luy jëriñi ak luy lore ci yàlla tabaraka wa taala lay bàyyee ko ba ca tegu mooy wadu kaasul ma alal qabri jël kaasu ndox def ko ci bàmmeel tey ji bu ngeen demee ci armeel yi armeel yu ëpp ci armeel yi di nga fa fekk benn pot ndox tegu ci ñu naan néew bi day naan xanaa boog boo ko doon yóbbul ndox boog nga tegal ko guttu kireen teg fa benn kaas waaye pot nga koy teg boo amul ku biir wala ñu naan picc yi dañ ciy naan su picc yi naanee léegi tiyaa Sénégal daal dañuy xalaat da ngay gis ku xalaat rek daan ne waaw loolu ma xalaat nañ nañ ma ko dugalal ci sama diine ji waaw loolu ma xalaat nañ ma ko indil ci sama diine ji ku xalaat rek loo neex nga def dañoo yaakaar ne diine ji moom amul dara ay xalaat la rek ah, dem ci armeel yi ut ay kaasu ndox di fa teg ci bàmmeel yi loolu ci xuraafaat yi la bokk bokk na ci azabhu indal xafril biiri dañ may gasal teen mu ne balaa ñuy gas teen xaar leen fi ñuy gas teen bi ma rey fa xar wala ma rey fa ginaar wala ma rey fa dara loolu dafa araam rey moom dafa araam complètement ci islam rey yi ñuy rey ci islam yëpp yàlla moo joxe ndigal bu dee korite nga am loo bëgg a lekk dagan na tabaski yàllaa ko santaane da nga am gan yàllaa ko santaane da ngay ngénte yàllaa ko santaane ceet yàllaa ko santaane gis nga fii rek lañ war a rey waaye ñun ñeneen dañuy jàpp di rey rek lu ñu neex ñu def jàpp nañ ne yow xar mi yaa ko moom wala ginaar gi yaa ko moom wala béy bi yaa ko moom wala nag bi yaa ko moom da nga ko war a rey déedéet da nga ko war a rey ngir yàlla li tax yàlla wax nañ ko rey loolu moo tax nga war ko rey waaye rey ay bokkaale lu ëpp ci ñun loolu la ñuy def bokkaale kese balaa nga fay def daal tuur fa deret deret dafa rëy deret dafa fort deret jaamu yàlla la li tax ñuy rey yàlla rek moo ko tax da ngay am doom jour ngénte bi jot nga dem jàpp doomu jàmbur rey ko nga bàyyi sa doom ci kaw lal bi mu tëdd loolu yàlla moo ko moom xar mi nga rey doomu jàmbur la amul papa amul yaay am nay mbokk comme sa doom ji ni nga ko juree moo am ay mbokk noonu la xar mi ngay rey am ndey am baay am ay mbokk waaye nga ñeme koo rey parce que yàlla moo la jox ndigal ne la rey ko nga war a sant yàlla ci loolu bokk na ci mbokk yi al istiaana bil mayit aw il ghaib allahu akbar di sàkku ndimbal ci ku dee ku dee ngay utti moom ndimbal te loolu moo am tey Sénégal ñi dee ñëpp da ngay gis ñu tàllal leen loxo di ngay gis ku dem ba ci bàmmeel dim bàmmeel bi naan yaa Cheikh damaa bëgg a tukki yaa Cheikh damaa bëgg a liggéey yaa Cheikh damaa bëgg a jabar yaa Cheikh damaa bëgg oto yaa Cheikh damaa bëgg fekk waa ji dee na kii bu mënoon maye dara mu may boppam tukulóor yi nee nañ duddu korkor so waawino huunde o tuuta e reedu makko musidɓe caggal yettude allah e juulde nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa sallam khutba men hannde wonno khurafat wa shirkiyat muntasira bayna annas inay e renndo men hannde e nguurdam meɗen eɗen waɗa geɗe geɗe ɗe ɗi fawaka e diine koye belaɗe pittali men tan fawi e yidde meɗen e kadi yidde rendinde allah e goɗɗum ɗum tagi tag eɗen waɗa kono en fawani ɗum e bindi laaɓɗi leerɗi en pawani hen koye pittali meɗen tan pawɗen ɗum ina jeeya hen jiya faɗo hippigo wiya a watta hay hunde so wona ma hippit faɗo ngo hen sahaji ni piya cukalel wiyamo hippitanam faɗo ngo cikka won ko woni hen haydara ala hen ko heddi ko kadi ina jeeya e meɗen dañen mawɓe moƴƴuɓe ɓe yalta adina ɓe maaya ƴetten photoje maɓɓe walla nate maɓɓe pawen ɗum e nder cuuɗi meɗen eɗen juuroɓe ngara mooma ceerno o mooma e tiinde ma eɗen gandi ɗum ɗon islam koko haɗi ɗum ene jeeya hen fewnude pegge gorko fewna feggere yaha ina wiya waɗat ɗum e junngo debbo mo ngannduɗa on o resata ɗum no ina jeeya heen ina jeeya heen haɓɓude jawo so tawi ko gorko haɓɓude jawo jawa ngo ngannduɗa ina jilli geɗe tati kaalis e jamdi ɓaleeri ɗum koko harmi tifaqan juulɗo haɓɓude jawa ngon koko harmi e islam ina jeeya heen haɓɓude tekke e otoji I- i- ina wawi kaɓɓa ɗum yeeso oto walla caggal oto ƴettude kadi pono oto pawa ɗum e dow galle ma ɗum kadi oɗon gandi koye khurafat hen jeeya ina jeeya liggude kurus e oto ɗum ne ko hen jeeya ina jeeya hen wadde alqur'an e less jaganayi ina lelo hen ina jeeya hen junggo ma ina ngata mbiya ɗum de ko kaalis walla yitere ma ina maja mbiya ko koɗo yiyata oɗon gandi aadaji ɗi ina heewi hay goto wawa ɗum gasdude kono ganden ɗeyɗon jeyaka e l'islam jeyaka e l'islam nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o yamirani en o addani paamen ɗum no feewi ettoɗen yaltude hen haade en mayde fottude e allahu subhanahu wa taala o ñawda e meɗen mbokko julit yi comme niñ ko baaxoo def tammu ko bisimillahi tabaraka wa taala buñ fi jullee ba pare am nañ fi ay ordonnance ak ay mbokk jullit yuy sàkku ndimbal lu waay def nag sa bopp nga ko defal wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lu waay mën a def ci lu baax ci mën koo fàtte ci ay mbokk jullitam yu nekk ci ay tartar wala feebar wala ay jafe-jafe ba mu dimbali leen loolu suñu borom subhanahu wa taala ëllëg moom mooy fay jaam bi bu ñu paree julli képp ku nekk ci yéen indi woon lu muy dimbalee mbokk yooyu nag ñu ko joxal borom zile yi zone yi ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul leen ko allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt birahmatika ya arhamar rahimin allahuma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an taruddana ila dinika maradan jamila allahuma ahsin aqibatana fi الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقامة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله